aouzubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi te duñu seetaan rawatina nag doomu Sénégal yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen dalal ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média rawatina ci seen émission wareef bi nga xam ne di ba jeudi saa su ne da ngeen ciy ànd ak ñun bu waxtu bi jotee nuyu nañu suñu président directeur général ak mboolem directeur ci biir kër gi boole ci ak di leen ñaanal yàlla yàlla mi dara tëwul yàlla na yàlla yokkal ñu jàmm ci biir kër macha allah jàmm joojee tam mu daal di koy wayeel rek yóbbu ko ci ñi nga xam ne ñooy askan bi askan bi nag bu ñu ko waxee ñëpp ca rawatina ñi nga xam ni mooy suñu ay kilifa diine ak suñu ay kilifa aada boole ci cofeel gu rëy ñu ngi leen di nemmeeku di leen ziyaara di leen baalu àq bu baax a baax di ñaan ci barke sangu bu tedd bi yal na seen taxawaay yàgg taxawaay itam yàgg pour ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu ay xalifa généraux moo xam fu xalifa général féete rek macha allah ñoo ngi lay nuyu di la ziyaara di sukk sa wet nànk di sàkku ci yow ñaan itam di la ñaanal nga yàgg fi lool te wér ñi nga xam ne itam jamono bii ñuy defee émission wareef yàlla dafa dogal ñu nekk ci clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi noo ngi leen di massalu coono di leen fàttali ne yàllaay dogal lu mu namm war na lu mu àggali daa jot yàlla na àggali ci ñoom ñu gaaw wér ba dellu seen biir njaboot ndax dana ci am solo lool macha allah. ñu ñaanal itam ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw ba tey ci àdduna la ñu ne ndax ku fi nekk ku ne di nga ñam ci yi fiy am yi fiy am léegi saay day nekk bànneex léegi saay mu nekk métit léegi saay mu nekk njàkkare goo xam ne boo seetulee sa borom danga ne yàlla yow rek la ko teg déedéet. mbokk mi lu la dal lu ne am na ku mu mës a dal wala ku gën a mettile dañuy tàllal loxo rek sunu borom ndax ku mu namuta fay rek du la liggéeyloo yal na yàlla dolli jàmm ci kër yépp macha allah ñu ñaanal itam ñi nga xam ne dañoo baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggal sunu borom njéggal googu yàlla na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci loolu suñu ay wasila dañ leen di fàttali suñu ay wayjur dañ leen di fàttali suñu ay soppe dañ ñuy fàttali dañ leen di fàttali yal na yàlla taas ñu ci barke mag ñu baax ñi suñu maam maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yal na yàlla dolli ko leer bu baax a baax dolli leer képp koo xam ne rek da nga nekkoon ak ñun fii macha allah tey nit ku baax ñu leen di wax di bisimila di wax ndoy baan bisimila kontaan lool ci dalal kontaan ci gan gi ngeen xam ne da ngeen ma ko indil ma gën caa kontaan kontaan itam ci li ngeen waaye dama lay njëkk a jox kàddu gi rek bu ko defee ñu dugg ci mbir mi ngi lay ziar di ziar moom ak euh, gan gi di ziar kilifa diine kilifa aada ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di ziar waa Pire Sañokor gi yëpp di ziar sunu xalifa ba sëriñ Mansour Cissé ak notable yi ca dëkk ba yëpp ñu ngi leen di ziar ak mm-hmm. ñiy seetaan mm-hmm. ñi ne ci réew mi ak ci bitim réew ak ñi nga xam ne ñi ngi dégg tey topp ak ñi dégg te toppaguñu ñi leen rek yàlla na leen yàlla def ñu wàññeeku te topp ci li nga xam ne moom la ñuy waxtaane mm. su fekkee moo gën ci ñoom Eva jërëjëf Baan soxna Linguère bisimila yow itam. wallaay am mbégte dooraat xanaa nañ daan dooreeti ne te jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey sama maam yàlla mag neen son Mandela koy jaloore di ziar kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal sunu maam Cheikh Tidiane Almaktum yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem waaye noonu la ñuy ñaanalee Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi oyof lool ci kawam ak mboolem sunu xalif généraux yi a sallallahu alayhi wa sallam Kamara Jibi Anta booy yaaxa jaay yàgg fi lool lool lool te wér di ziar mama Kinushka yaay na fi ak njaboot gi yëpp noonu la ñuy ziaree suñu yaay bopp yi itam yaay Astu Jara yaay Astu Seck mère Ndoye yaay Issa Diop yaa ba bàjjen Awa Diop ñoom ñëpp ñu ko wax ne ko sant ba sant jeex sant Njaay ci la lool ndax yow suñu yaay xol nga loolu démb la tey soogay maam jaaratu laay Njaay nekk fële ca Dubaay di ko wax ne ko lom nee nga dund ba énervé loo dund doyul xanaa Eva dañuy delluwaat rek waxaat alhamdulilahi rabbil li ko waral mm-hmm. muy màggalu poroxaan ñu ñaanal jaaratulaay yëpp yal na yàlla yokk seen xam-xam waaye di ñaan yàlla yóbbuñu ci ak jàmm delloo mm. suñu ak jàmm mm. te lépp lu ñu fa ñaan mu saawaan baawaan ci réew mi mm-hmm. ndax ñun jigéen ñëpp yal nañu yàlla jàppale ba ñu nekk ay jaaratulaay te Mamour Anta yi bañ a dëddu yal nañu ko yàlla defal alaaji mm. Mouhamadou Lamine Baara ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccu waaye di la wax bismillah dalak yow daf ñuy neex lool lool aousubillahi samil alim min asheytan irajim bismillahi rahmani rahim gannaaw ba ma santee sama borom subhanahu julli ci sayduna Muhammad damay sant sama ñaari waajur bu baax ndax itam nu ñu mel tey gannaaw yàlla ñoom la di jiital sama waajur bu góor su si eh, alxaaji Ibrahim di ziyaare itam sama waajur bu jigéen di ziyaare itam sama wasila sëriñ Jili Mbàkke Abdul Xudoos ca Daaru Muxti di ziyaare waa Daaru Muxti yépp mhm. eh, di wax daal su du suñu bari xam-xam moo tax ñu toog fii lu itam ëpp ñëpp xam-xam moo tax ñu toog fi waaye ndimbalu yàlla la ak yaakaar ji ngeen am ci ñun kon nag lépp loo xam ne wax nañ ko fi bu rafetee looloo doonoon suñu mbébét ndimbalu yàlla bokk ci lu ñu fi wax itam mu doon jumte nañ ñu ko jéggal te xam ne doonul woon suñu jubluwaay incha allah waaye nag boroom xam-xam yi nga xam ne ñun dañoo dajee booloo doon benn di xeex lii ndax lii du man rek maa koy xeex mhm. waaw bari na ñu baree bari ñoo xam ni ñoom ñooy xeex lii muy sëriñ si nga xam ne dañuy jël ay eh, karaamatal xay nii di ko naxee nit ñi di yàq deru sëriñ si ba deru sax ñuy yëngatu ci lasraar bareetuñu léegi seen dar dafa tilim mm-hmm. muy mbooloo moo xam ne waa fatxul xarib lan leen di woowee ñi nga xam ne dañuy sàmm ndonal mag ñi nga xam ne jëm ci wàllu lasraar njiit la de sëriñ Xaban Kebe ak alxaaji Malick Guèye xam ngeen ko xam yéen ñëpp xam ngeen ko mm-hmm. waaw alxaaji Malick Guèye mm-hmm. ak sëriñ Xaban Kebe ñooy njiit yi ñu booloo ñu toll ci 247 sëriñ yoo xam ne dañu booloo di def di xeex loolu di sottante xalaat di itam ay xalaat sax dañ ci bokk waaye dañ leen di jejji di leen teg ci yoon bàyyi leen lii bàyyi leen lale ba pare di bind ay téere yi itam yoo xam ne ñoom ñoo boole ku nekk génn sa xam-xamu bopp mm-hmm. di bind ay téere di ci jàngal xale yi nga xam ne dañu yëngatu ci las yëngatu ci lasraar kon loolu dañ ci jublu rek ngir sàmm mag ñi nga xam ne ñoo fi nekk te euh, ay nit jéggaani ci àll ba ndax am na ay xam-xam yoo xam ne dañ ko jéggaani ñun mm-hmm. Sénégal xamuñu woon ay karaamatal xay nekk yooyu mm-hmm. waaye nag lu yàgg ci réew mi la dañ ko jéggaani ñëw indi ko fi li ñu xamoon mooy alquran ak suñu mbokk lébu yi lii ñuy def nga xam ne dañu samp ay xàmm di ci faj mhm. suñu bokk séeréer yi tamit ñoo lébu yi ñoo bokk leen lu ñuy def waaye nag li fi xew léegi lu ci ëpp dañ ko jéggaani mhm. kon nag ñun ñi nga xam ne itam yàlla daf ñoo dimbala donte ëpp ñu kenn xam waaye ndimbalal yàlla la mu ñu foofu gannaaw suñu suñu suñu góorgóorlu ci suñuy waajur mu jublul ñu foofu ñu ci teg nit ñi pour ñu mën a yeewu kon nag loolu mooy li nga xam ne mooy suñu toogaay fii di xaar question yi lépp luñ ci xam ñu wax ko luñ ci mhm. xamul ñu maanu ci bisimilah soxna Aïba macha allah ni la mami introduire neex na lool ne bi nga agsee maa ngi naan alhamdulilahi rabil alamin ndax koo gisul soppoo ko dangaa togg ak ay noonam mhm. waaye koo gisul ku ne nga sopp ko te agseegul boobu dangaa togg ak ay soppeem sa jëw daal di lay jiitu ci plateau bi sunu yaakaar tasul benn yoon tabaarakallaahu sunu xel dafay dem ba tey buñ dee waxtaanee lu ni mel ci saalum saalum bu mag bi sunu kilifa sunu xarit sëriñ di Seck ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ca Sicap ñu ngi koy nuyu di nuyu bu baax a baax sëriñ euh, Cheikh na Traoré macha allah ca Sacré Cœur moom ak waa këram yëpp duñu fàtte itam sëriñ Dofène Faye ñoom ñëpp ñu ngi euh, fii ci Dakaaru rawatina nag ca ñaari tali ñu ngi koy nuyu bu baax a baax bàyyu fàlloog euh, góor yi góor yi Seynabu ñu ngi koy nuyu bu baax fi nga tijjee émission bi am na solo lool ndoy ban dañoo kontaan ne jamono jii gis nañ ne wàlli sëriñtu dafa bare bu jëkkaan nga jukk dem ci sëriñ ne kat sëriñ bi gannaaw yàlla yaakaar naa la dama bëggoon sama jaboot nga ñaanal leen gannaaw yàlla yaakaar naa la dénk naa la sama bopp ndax nga leeral sama yoon ma mën jaar waaye léegi ñi mel ni ñoom Evatra nag ñoom mhm. puusal ma toog la ñu jël mhm. rawatina nag ñu teg waxtaan wi ci wàllu société doo jàngi nit ki dem jàngi amee diplôme ñëw yàlla def mu toog ca place ba nga ni place ba du fa toog nga nekk nit ci benn bureau mu ëpp la compétence nga nit dee kii du fi yàgg nga nekk nit sax ci bureau mu nangu la nga xam ne patron daf ko koy teg nangu lool li nga xam ne dañ ko koy ne liggéey ko mu def ko léegi loolu yëpp daal nekk na défaut ñun ban monde la ñu nekk Serigne Bara mm-hmm. waaw soxna Eva. naam loolu nag dafa dem ba dafa wàll yaani fépp ci société bi. boo demee ci gouvernement bi. Mhm. nga dem ci société yi nga xam ne ay sénégalais ñoo koy créer ci biir réew mi. fi nekk société bu sénégalais créer rek bu dundee ñaari ak ñett day daanu. dëgg dara du ko daaneel lu dul lu ëpp mooy nit ñi nga xam ne dañ fi nekk mënuñu seen liggéey di njabar ñi mën seen liggéey ngir ñoom am place. Mhm. dégguma de. li ma la wax kay. mënuñu seen liggéey baara ñëw kii mën caméra am baara ñëw TFM gis ko muy liggéey ngir mu jël place am mu njabar ko moom mu génn mbur moom mu mën a placé xam nga loolu bu yàggee TFM dafay dafay dafay daanu bu baax baara yàlla nañ ci yàlla musal amiin amiin kon nga xam ne euh, euh, euh, même ci gouvernement yi da ngay gis li may wax nii dañ koy généraliser ci lépp ndax ci kër yëpp la ñuy wax dëgg la da gis benn ministre mu mën liggéeyam lool ba senegal yëpp d'accord que ni kii lii mooy domaine am daf ko mën hmm. mais nga gis kenn jógee fële dem ci sëriñ njabar koo njabara njabar mu feebar li may wax nii lu ma xam la ndax am na koo xam ne feebaroon na feebar bu metti waaw nga xam ne euh, dañuy bañ a wax daal waaw léegi tax nga xam ne dañ koy dañ koy njabar ba moom mu feebar wala mu démissionné wala mu xabtal ko wala mu jëf jëfin woo xam ne bu ko defee moom automatiquement dañ koy fal loolu yëpp fépp la am nga gis kay ni da ngay da ngay nekk ci kër yi itam mm. sa waajur bu góor fonk la lool dëgg jox la cër lool dëgg fekk du caagi ne que da nga def dara sa waajur bu góor waaye ni nga ko yoree la. allahu akbar ndax olof dafay wax ne mag. Mm. lu waay wàññi ci dara jaam xam na ko waaye lu waay wàññi ci wokk ci dara jaam xam na ko. shukran kon xam da ngay gis ñoo xam ni. Mm-hmm. dañuy booloog seen waajur bu góor ndax di ko tarbiyu. Mm-hmm. waaye seen wujj yaay ñooy taxaw fële ne carrément kii dafa gënal lañ sama doom wala dafa def lu tax. ay doomam di sama jëkkër di leen topp fekk du loolu moom liggéeyam lay xelam mooy na dem ci sëriñ jabar ko ngir mu ngir ngir mu tàqali ko ñoñ kon mbir mi dafa law ci société bi yëpp fépp la law amul fenn ci biir ci ci ak Sénégal fii mhm. loo xam ne nit ñi ñu ngi ciy yëngatu moo xam ba ci ñun ñi sax di yëngatu ci wàllu saraata ah. da ngay nekk ci benn koñ waa ci benn quartier di yëngatu ci wàllu lasraar mm-hmm. kenn jóge fa lay gis na yow nit ñëpp daw nañ ñëw ci yow waaw mm-hmm. mu jël benn béjjéenam ah. ba natt ko ci sa diggante xiblaa sa sa sa sa kër ak sa kër ak këram bu ko fa rëddee boo fa jaaree nit ñëpp dañ lay daw ñëw ci moom te loolu am la lu ama am la. ndoy baan bisimilah. Hmm. macha allah baara macha allah. war a ñëw dëkk sa wet. waaw ah. ay baan. waaw lu biir sa xarit a ngi toog. waaw waaw ni mu koy waxee noonu la rek li am li ci li ci mooy li ci dëkk bi. amoon naa fi benn émission boo xam ne mi ngi tudd li ci dëkk uh-huh. mooy loolu moo moom moo lii muy wax nii moom moo nekk ci dëkk bi. moo uh-huh. foo làmb moom ngay daj. Uh-huh. waxoon naa la soo gisee Sénégal dañuy di ñu ñu të décollé. moom maanaam ñu tëgg te avancé. toujours ñu nekk ci ay problème élection élection coow coow coow coow. c' parce que nit ñi nga xam ne dañoo soo dañ lay teg ci place boo xam place boo xam ne médité nga ko lool lool lool lool sax. am ko nga jaar ca bunt ba ñëpp. gis ne ca bunt ba nga jaar <laughs> am koo xam dañ koo jaarale ca fenêtre ba indi ko. ka ca jaar ca fenêtre ba. c'est vrai ka jaar ca fenêtre ba moo lay xonjom pour yow nga génn mu toog. nga jaar buntu bu rëy moom mu moom mu fàq. du waaw moom moom moom moom maanaam moom moom moom parti politique moo ko dugal. dëgg la wala ab sëriñam moo ko dugal. Mm-hmm. wala ndajaayam moo ko dugal wala mbokk moo ko fi dugal. dëgg. man nag dama am samay diplôme wala ma liggéey ba ba ba gis ma indi ma fi. waaw yow mi nga xam ne man man man mi nga xam ne dañ ma liggéey man sama dama mën sama liggéey tax ñu indi ma fi. waaw kee nga xam ne dañ koo jaarate ca fenêtre ba. moom mooy ñëw taxaw ba ni da la fiy parce que poste bi nga nekk loolu yéen a bokkule li di liggéey. dëgg la xoolal lu mu mënti investir pour jëlee la fa. parce que soo soo fa jógee rek mooy toog. lu mu mënti def pour jëlee la fa da koy def su fekkee nit ku bor ñëpp nag. dëgg na ñoo xam ne ñu baax la ñu. dañuy topp sa ginnaaw di jàng di jàng. Mhm. di la tarbiw. di la tarbiw ba mog nga dem ba gën laa. ay te lépp ngi lépp a ngi ci tarbiya nga baal ma. ndax soo nangu mooy mooy nangu loolu mooy nangu. Mhm. tarbiya ci boppam mooy nangu nit koo xam ne da ngay nangoo jaamu ki nga xam ne moo la ëpp xam-xam. dëgg la soo nangoo jaamu ki ëpp xam-xam da ngay da ngay da ngay da ngay bari xam-xam. mais su fekkee nanguwoo ko jaamu. yaa nga naan maa ngi moom a bokk li ñuy liggéey. Mhm. te moom a ëpp salaire. moom day tukkee ka ñëw. maanaam gaar jënd na oto. takk na jabar kër ga mu tabax nga teg ko bët maanaam dañ lay teg bët. Mm. dem posé nga ma question bu am solo. da nga ni ma lan moo tax lan mooy nekk ci bopp nit ki ba tax muy dem di njabar nit di ko def def lu bon. waaw lan la. mooy góom bi may wax ci feebar bi may wax ci dëkk bi depuis ba wareef tàmbalee ba léegi maa ngi koy wax dafa am feebar bu nekk ci ñun sénégalais yi muy feebaru soxor. feebaru mm. iñaan. Mm. dafa métti nag. loolu nag mooy pousse nit pour mu dem di liggéey nit pour def lu bon. dëgg la fekkee yow iñaanoo Eva ni mu mel neex na la. heure bu ñëwee da lay gën a neex. yi ni mel neex na la heure bu waxee mami da lay gën a neex mm. da ngay gën a bëgg am na ñoo xam ne suñu déggee mami dégg wax seen xol yi day seet xam ne gisee Eva toog ci plateau bi mm-hmm. seetaan ko seen xol te pourtant yéen bokk loolu li ñuy liggéey am xam ne man ak ñoom ñoo bokk li ñuy liggéey suñ ma gisee may toog fi ñu toog di kontaan soo paree ñu envoyé la message félicitation nangam nangam mais kooku du dem di liggéey kenn waaye koo xam ne fa mu toog lay toog yéen a bokk li ngeen di liggéey de mm. fa mu toog ma nga këram di ñu seetaan jamono jii mi ngi naan Eva ma foofe ndeysaan ndooy baan ne ma soofe ndeysaan seen place bii laa bëgg ndeysaan tu vas mourir très parce que loo mën di defit doot jot ñi ngay ñi la soof dañoo mën seen liggéey mais yow wéeroo ko fenn fenn fenn fudul dem def ay xarfa xuufa wut ay sunguf wut ay sëf wut ay nangam ak nangam pour ki ki pour nit jot ñàkk liggéey mhm. tey ji da ngay gis ni équipe bu football yi ngay gis nii tey ji su fekkee tey ji góol ba góol bii moo dàq góol ci réew mi entraîneur bi moom la tànn yow nga nekk góol ñu waroon a tànn tànn ñu la ñu ne kee moo la dàq góol moom leen tànn yow ngay xon góol boobu pour ñu dugal ko ay bu yu bari pour ñu dàq ko yow nga toog léegi lor nga réew mi yow bëgg place tax nga xañ Sénégal te loolu dafay am de bëgg place tax nga xañ Sénégal waxoon naa fii ca coupe du monde ba dañ doon liggéey équipe nationale yooyu yu am la kii xam na ci lu baree baree bari xam na ci yu baree bari yoo xam ne ay sénégalais yoo xam ne bëgg place bëgg tax na ñuy équipe xoo fu ñu toll équipe nationale pour du am ndam ñun su amee ndam gouvernement bi loolu nag du léegi de ca jamono Ablaye Wade la jamono jamonoy Senghor gouvernement bu fi mënti toog gi am na ci ñoo xam ne dañuy bëgg jot ci nguur gi tax ñuy xoo équipe nationale basket bi xoo équipe nationale football bi pour du am ndam ndax Sénégal soo seetloo équipe nationale football su dee am ndam dëkk bi day neex dëkk bi day day calme dafa am question jërëjëf Ndoye Bane dafa am question bu may posé sunu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi nekk à l'extérieur te yàgg foofu lool dama bëggoon ngeen woote ngeen wax ma ndax tubaab bi ni africain bi mel la mel question la bu may laaj ndax tubaab bi tam am na jot di njabarante di defante lu bon parce que mënuma ko teg fen lu dul ma laajte ñu jox ma xalaat ah, mami dama lay bàyyi nga jël ko bu ko defee nga salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam sataar la ni baax Uh-huh. bonjour Léopold. Uh-huh. Euh, seen invité maa ngi rafetlu émission bi bu baax. jërëjëf euh, émission bi am na important trop. c'est la première fois nag may woote numéro tonton Ndoye Bane laa soxla woon. Uh-huh. numéro tonton Ndoye laa bëggoon. waaw tata Mia dina la ko jox léegi. incha allah. waaw d'accord. ndeysaan soxla nga numéro ku nuroog mbéy ngay fay ci suba gi waaye. <laughs> li jamais 203. wallaay nuroo ngeen torop. li jamais 203 très bien mami bisimilah. tax nga damatuma góoru maam Ndiaye fi mu toll nii. wallaay wallaay Eva man xam nga nee bu ñu dalalee borom xam-xam damay bëgg rek toog di déglu. Mm-hmm. ndax alaaji baara fi mu ubbee am na solo lool lool mais ndoo it indi na lu am solo. Mm-hmm. xam nga tan mi yeyoo medd sax am na nu medd di tëddee du ko lekk. Mm-hmm. waxuma nag ki nga xamante nii dafa war di dund ci lu lew. waaye bu ñu demee mi yàlla da lay dimbali sa ndey sonn sa kër bàyyi mm-hmm. nga xëy rek yàlla yóbbu la fay xañ na fu ñu foogul woon mm-hmm. nga daal dégg ñu ne ak a saf biteel moom moom xanaa du fendi mm-hmm. xanaa moom suba bu xëyee day sangu te ku mu neex bañ a waaye teg ko ci jàmm sax euh, baara du ko wedd man man man <laughs> mu neex lap waaye na nga ko teg ci jàmm mi man jóob mii de du ma fendi waaye li tax may ñàkk a fendi yëpp mooy lu ma aar ak lu aar sama mbàkke mbàkke d'accord nag man du waaw man loolu rek ma tax di xëy moo ma tax di gont sant yàlla ma aar lu aar sama njaboot bu ma neexee nag ndax ku nekk sañ nga ko waaye li ma d'accordul kay mooy yow taloo lekk taloo naan pemti pemti nga ba jeex a dégg ku ne damaa bëgg jeex caat ne ko kaay ma diggal la nu ñuy def ba jeex mu ne ko ah, mu ne ko bañal ku ndeyam lii lekk di naan bañ ko ndeyam liggéey te defu la dara léegi tey nga jeex tàkk ba mel ne siika mi na ma yeret mhm. xam nga dafa am yoo xamante ne boo ci nekkee doo am jàmm doo bàyyi nit ñi ñu am jàmm ndax yow li ngay xëy di tuñ tuñi sa alal dina dem. dëgg sa fit dina dem. ñaar sam xel dina dem. ñett sa yaram dina dem. ñeent di nga dem ba sa jaamu yàlla dina manqué. juróom amoo di dund ci àdduna amoo fi dara yombal xiyaam yaakaaroo fa dara yaakaar naa ne mën naa ñàkk. pertement bu mag a mag a mag. mais itam xam nga dañuy dem ba puusal ma toog pour man bu ñu koy wax fu nekk rek dañoo dem ba xëy na ki koy def dafa gëmul boppam mais ku wóolu sa talent yenn yi du la ko jaral. parce que loo gis talent la kii xëy di jaay gerte caa sax su mënee saax gerte gerte ga neex bu jaayee dina jarle mm. aleykum salaam wa rahmatullah ah, kay sëñ Baara sëñ Baara ngi ah, ah, sëñ Fallou maa ngi lay ziar bu baax baax a baax sëñ Fallou baax ngi si jàmm bu baax ñu ngi sant yàlla alhamdulilah ngi rafetlu émission baax baax a baax nga sëñ Fallou di wax ne yow it borom xam-xam nga. ndeysaan ndeysaan. te lépp loo xam ne wax nga ko rek. am loo mm-hmm. bàyyi. Mm-hmm. ndeysaan macha allah. ndax xëy na ban xamante yàggut waaye jëflante nañ bu baax a baax. ba ndeysaan ndeysaan xam nañ bu baax a baax a baax daal. ndeysaan mm-hmm. ndeysaan. waaw damay wax ne eh, xam-xam moom. ñu mel ne yéen rek yéen yéen ko war di leeral daal ndax ay ay référence ngeen. li nga wax yépp ci yow la nekk. ndax ndax damay wax ne nit booy leeral wala booy jàngale. li ngay jàngale da ko war a xam. ndeysaan ndeysaan sëñ Fall. kiy jàngale kiy jàngale lim xam bu koy wax rek. day mm-hmm. yomba day dégg ñi nga xam ne xamuñ ko sax. macha allah sëñ mm-hmm. Fallou jërëjëf sëñ Fallou. am na solo lool. ci ci boobu may wax ca la bokk. Ah, boobu may wax la bokk. fi mu ne mm-hmm. moo ko sababoon. benn mbokkum taalibe ubbi ko. di dil ay sëriñ yi nga xam ne ay kilifa yu yu mag nag laa wax xam nga bu ne alxaaji Malick Guèye xam ngeen ne kon ñu ndaw ñu ndaw kon nga xam ni mm-hmm. kooku baan mii moom a xamale woon ak moom mm-hmm. waaye Euh, depuis 2006. Mm. ba léegi ñu ngi ànd. léegi man damay laaj. waa ji toog sawet ndax bokkul ca groupe ba. <laughs> nga di ma ko nëbb. <laughs> moom nag moom dafa ubbi groupe groupe boppam. nee naa la dafa boo ñëwee am 150 mètres boo xam ne. ay xàmb la fa def di sangaate. moom it <laughs> bi ngay. waaw la bëggoon gis ci lu gën a metti ci réew mi loo xamante ne jigéen jóg na ñëw diis la ko ci borom këram wala nit ñëw diis la ko ci liggéeyukaayam. loo xamante ne wóor na la ni lii lu metti la. jërëjëf euh, soxna Mami. Mm-hmm. dafa am lu soxna Eva posé question ñu nekk bitim réew. Mm-hmm. sànq ma bëggoon ci wax tuuti rek doo la ñëw sa mm-hmm. question bi. da nga wax laaj ñu nekk bitim réew man sax maa moo mën laaj bi. gis nga sénégalais ak yi nekk bitim réew. yàq nañ tubaab yi ba léegi tubaab yi dàq njabar léegi sax nit ñuul. nga ni ma la walla man li ma yor ci ay clients yi tubaab. moo ëpp téeméeri fukki junni yoon li ma yor ci ay client nit ku ñuul uh-huh. su ma xëyee suba li may recevoir ci ay nit yu weex ci téléphone moo ëpp dañuy jógee sax ba ba bitim réew di ñëw fii di ma seet si ñoo ëpp foofu kon nga xam ne mbir mi nit ku ñuul la yàlla bindee soxor li baan wax dama ko mas a wax baan waaw euh, ci benn émission bu ñu doon def euh, thème de la semaine ay nit di wax di ko sànni ay trac xam nga moom moom dafa dafa dafa belende dama fogoon ne sax yéen a ko sang pour mu nangu <laughs> trac yooyu pour mu yokku <laughs> ma ni yëpp foog ñu bari di woote di ma ni ko baan noonu moom kenn du ko jënd kenn du ko wut xam nga lu koy maye mhm. baaxal rek mhm. boo baaxee rek doyal ci sëkk waaw mhm. ah, kon nga xam ni nit bu fekkee ne dafay bu bëggee am noonu rek baaxal nga xool fi ne boo fi nekkoon di mandee ka nekk ci lu nekk ak ngay bari xarit te bari fere kat. sa kër day fees dell. Mhm. waaye fi mu ne boo tegoo ci yoon ne ci dëgg. am ay principe ba pare di wax dëgg. am looy bañ am looy bëgg organiser sa njaboot. Mhm. topp say waajur. Mhm. automatiquement sa biir kër lañ la njëkk a noono say mbokk lay njëkk a noono auto law xas. allahu kon nga xam ne mbir mi dafa dafa daj kàpp rek ci société bi ba nga xam ne ku ci nekk war ngaa mën a. jàngat ci sa bopp fii jarul kenn di jàngat ci nit ku nekk boo jàngatee ci sa bopp rek li ñuy waxtaan di nga ko gis ci sa bopp maanaam yoonu njub ne ca daa metti dafa metti yàlla dong la mën a sàmmal boppam yoonu njub moom ak yoonu saytaane ñaar yii la mhm. yoonu saytaane mhm. leeru timis la xam nga leeru timis booy xool da ngay mel ni yaa ngi jëm ci bët gu bët gu set waaw seytaane da lay wan ne yaa ngi jëm ci leer fekk lu mu gën a dem nga jëm a gën gën a dugg ci lëndëm mm-hmm. yoonu sa yoonu sama boroom nag mm-hmm. subhaanahu tax taala mm-hmm. lëndëmuk fajar la lëndëmuk fajar boo ci nekkee da ngay jàpp ne yaa ngi dugg ci guddi gi waaye loo gën a dem rek muy gën a leer kon lu mel nii lu lu jar ràññee la. dëgg waaw dëgg. kon ñëw ñu ñëw ci question soxna man bi. bisimilah. Euh, li nga xam ne moom la so Sénégalais yi di ëpp lu ñuy ñaan ñaanlu Sénégalais moom soxor maanaam soxor moom dafa mel ne yàlla daf leen ko mooñaale. est-ce que du bi ñuy lekk la. moom moom lu lu doy doy waar la. Serigne Bara bu ma découragé nga ni ma. soxor soxor. ah jël jëlal ki ci ligne man de tiit naa jëlal ki ci ligne bi ba pare. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam. na ngeen def bu baax bi ñu ngi lay ziar. waaw mami maa ngi leen di nuyu Eva maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyu bu baax man Ben Ndoye Ban. maa ngi lay nuyu. Ben. waaw. Ben naka waa <laughs> euh, dëkk ba. waa dëkk ba ça naka waa Amérique. namoon naa leen. bisimilah l'antenne est à toi. <coughs> d'accord nam maa ngi nuyu seen euh, ki ngeen invité noonu. Serigne Ba la rafetlu waxtaanam. Mhm. Euh, Eva dafa am benn question boo laajte nga ne ñu yàgg bitim réew. Mm-hmm. ndax euh, tubaab bi affaire yooyu gis ngeen euh, au Sénégal ah. Mm-hmm. il faut ñu toog tamit wax loo xam ne ndax ñun dañu gëm yàlla. Mm-hmm. dafa am sens wala gëmuñu yàlla. parce que le blanc tubaab comme ni ko Eva waxee dëkku tubaab bi ils sont pas méchants. mais ñun Sénégal quand y la facilité c'est le maraboutage. même dafa dem ba ñu ancré ko au niveau des familles. je te donne un exemple un couple de polygame Mm-hmm. xale bi benn xale day jékki-jékki feebar dikku wax ju ñaaw ju ñu ne mm-hmm. wujj baa ko liggéey mm-hmm. est-ce que ñun kon gëm nañu yàlla kan mooy ree yàlla mooy ree yàlla mooy ne nit da ngay feebar et je reviens sur une question de mon ami Ndoye Bane quand on a une équipe nulle équipe boo xam ne mënul gagner parce que y a des preuves qui sont là jëlal équipe nationale basket Sénégal nga indi Dream Team équipe nationale u Amérique boo indee quatre cent soixante cinq millions virgule huit cent soixante quatorze marabu du ñu tax ñu gagner ñooñu du ñu leen mus a gagner parce que ñooñu sont des professionnels ñooñu mun ñooñu dàq basket donc boo indi woon bu Sénégal bi mara marabu Afrique nga dajale leen du ñu gagner équipe boobu donc yaa a une boo xam ne il faut que ñun ñu gëm ne yàlla mooy xeeñ Uh-huh. yàlla mooy teg nit ki li mu doon. yàlla mooy def lii mais ñun. wallaay ku këpp a xees. ñu ne non ki mu doon liggéeyal moo ko marabu wala ki mu doon kiyal moo ko kii non il faut il faut qu'on revienne sur terre xam ne. Uh-huh. nit ki bu fekkee dañu ne yow. Uh-huh. jullit nga. am na loo gëm si àdduna. ñu ne booy génn nga jàpp ñaan dem sa yoon. am na yoo xam ne je crois on doit éviter toog si télé di wax que néew ma nag du ma yàlla du ma yonent néew ma marabutage amul. mais dafa nekk loo xam ne c'est ancré dans la mentalité des sénégalais ba nga xam ne pour ñoom lu tuuti ñu ne dañ la mara marabouté donc moo tax ma ne facilité fu mu am mara maraboutage dafay yomb et je ne veux pas toog ñu may ne surtout loolu dafa ma naqari ñu ne non boo demee ci sëriñ bële kooku c'est le meilleur <laughs> mais ana yàlla booba temps mhm. ana ñaani ñu xam ne tegal nañ ko nit pour nga xam ne boo ko ñaanee boo utee di nga am ana ñaan yi nga xam ne teg nañ ko ci alxuraan ak ñeneen ñoo xam ne seen gëm-gëm teg nañ ko boo ko ñaanee di nga am. Mhm. donc pour moi daal en quelque sorte. Mhm. maraboutage gëwuma ko te gëwuma ne yàlla dina ànd ak kuy def lu bon. ah déedéet yàlla wax na ko sax kay. kenn mënees koo gëm. nuyu ma sa copain père May Ngone ak nga ne ci euh, sëriñ euh, Baar. Mhm. nga ne ci lu baax. Mhm. nekkal sunu borom mu wóor ko wóor la. Mhm. keneen ne ci lu bon yàlla jël ko dooleel ko abadan ateke. Eh du mës a am. ay mami am na lu la laajoon. kon kon ñu wax te yeggale tuuti ci question bi. Euh, li ma lay wax ne la soxor dafa daj kàpp ci réew mi. ñu ëpp ñu ñëw di di ñu seet comme li baan wax ci Coupe d'Afrique bi passé man proposé nañ ma vingt millions. maak sama benn xarit boo xam ni. pour équipe bi toog. foofu laa jëm rek fa vingt millions maak sama benn xarit boo xam ne ñëpp xam nañ ko ci football baan mi xam na ko. 20 mhm. millions proposé nañu ko pour équipe bi toog premier tour. te ay kilifa lañ ay kilifa kon loolu li baan di wax nii lu am la. Mhm. lu ama ama am la. soxor moo daj kàpp ci réew mi maanaam dafay daj kàpp. man nag découragé naa de. te loolu fi mu ne boo ko waxee fi mu ne ñu bari mere la fi mu ne nii may waxee nii toog fii di wax nii am na ay sëriñ yoo xam ne ñi ngi ci di seetaan lu ne ñu ngi ma ko yàq mhm. kon soxor dafa daj kàpp ci réew mi nga gis ne bu ñu ñëwee ci yow li ma ko waxoon li ma waxoon eh, keroog ñu commencé quinze ans léegi xale yi jigéen ñi am 15 ans ñoo daq dem ci sëriñ dañ ma tiital que léegi ñi am 40 ans ndax ñi am 40 sax yeewu nañ léegi mhm. boo boo waxee wala ñu gis la ci bët rek automatiquement xam nañ yow ban genre nga mhm. mais ñu am 15 ans li ma ci gën a naq ni mooy xale yi jigéen yi tollu diggante di dem ci sëriñ ci ñu leen di yàqal seen seen seen seen bi mhm. te loolu lu fi bari la mhm. lu fi bari la mën naa wax ne mënumaa toog ñaari weer ba ñetti weer te recevoir ma ci kenn yedd ko ba mu delloo si xalam te loolu booy wax sax dafay dafay dafay dafay nduru leen ndax dafa dañ ndaw yi lu ñuy ñaanlu nopp sama copain waaye ak pour mu bañ a euh, tollu ëmb. waaw fas yi mooy fas yi fas yi planique yi. Uh-huh. pour ñu bañ a pour ñu bañ a ëmb. Uh-huh. ak examen. mais ñoom duñu xeex. bañ a ëmb te foofu mënoo faane sëriñ Bara ñaanal ma lu sama xel dul dugg duggagee ci góor ba ba may am jëkkër. li ma la boobu fekk ma sama pour te dire ma firndeer la rek. baat mi xam na li may wax. am na saafara bu ñuy defar ci silip yi. am na ñoo xam ne bu ma leen ko proposé na am ah man de loolu moom wax dëgg yàlla. te mi xam na ko fekk na yàq nañ seen toq si ngalam ah? bu yàgg. te loolu fi mu ne nii boo ko defoon tey jii même boo jëloon intention dem mooy yàlla sax a ma yàlla. loolu ñuy defati njiit laay sëñ Baara bëggoon naa yéen itam ngeen di ci baaxe askan wi ndax ku ko def ci sa doom ju jigéen ju toll ci ndaw. Mhm. su fukki góor daje woon it mënuñu ci moom daal. même moom sax su jëloon intention dem dem na day mooy. dama ne dañ koy defalante dama ne moom su jëloon intention dem na day mooy. Mhm, sax du ko ko may mhm. Mhm. bu taaru woon ba mel bu doon jël xaalisam di ko joxe ngir mooy sax du gis ko moyal mhm. te loolu am la te nit ñi itam dañ ci war a yeewu mais dama ne baan wax boo xam ni il faut lay ko sénégalais yi xam ne waxul pour boppam nit nag dina wax dëgg mais ni mu koy waxee waxee ko tàngaayam ndax day koy tibbee ci xolam dina tax sénégalais yi dinañ jàpp ne dafa naqadi deret wala déedéet mhm. baan day wax chaque journée jigéen ñi ñu ci ëpp dañoo bëggul lu baax gis nga loolu dafa am dafa am ñoo xam ne bëgguñu lu baax parce que ku ñëw ci yow ne la man sama copain bi damaa bëgg mu takk la takk ma mais déggoon naa ngay wax loo xam ne boo ko raxasee sa kanam joteeg moom <coughs> xoolal lim préféré yàqu soog a dem am waaj kay gis nga lim préféré loo xam ne boo ko raxasee sa kanam joteeg moom jàpp jàpp waaj jàpp waaj te pourtant loolu dañ ko doon waxtaane ci am na ci société bi sëriñ soo xam ne dañu am gàllaaj yooyu di ko liggéey. Mhm. mais ñoom bu ñu ñëwee loolu la ñuy préféré te ay célibataire lañu. macha allah sëriñ Baara moo tax gis nga Ndoye Bane yow la ñuy ñëw jox kàddu gi saa su ne bu jigéen ñëwee ne ma dan maa dëddaleeg sama jëkkër. allo danoo nangam Ndoye Bane jëlal ki ci ligne bi allo jëlal ki ci ligne bi. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. na ma sëñ Malick Guèye de. Ah. <laughs> <laughs> mais Malick tey de tey de moom am ngeen émission moom. dégg ñu bu baax. ma tey de am ngeen émission nag. est-ce que seen seen émission la. ma ba noppi dugg ci waxtaan bi. ah yow bisimilah. maa ngi euh, tàmbalee ci nuyoo bi moom euh, ma Ndoye Bane. Mm-hmm. moom kenn du ma ko présenté xamante ne baax a baax. waaw ah, di ma taxal rek waaye mu ngi koy teg euh, soxna Xeeba. di ngeen ma taxal rek. Mm, moom mi représenté émission bi ànd ceeg sunu soxna soosu di soxna mami. léegi sama jamono sama borom kër. waaw lu lu wér la ndax euh, bëgg bàyyi. Mm-hmm. sama xarit la lool. wallaay ndeysaan xam naa. doy baax maa ngi lay présenté loolu. Mm-hmm. nga xam ko yaa soxna Eva moom. jërëjëf jërëjëf euh, Baara. maa ngi ñëw ci kooku ngeen dalal di Serigne Baara Kebe. maanaam bu doon mbërum làmb dañuy wax ne mbapat na. Mhm. entraîné na topp na li jëm. Mhm. kon loolu laa leen di présenté li ci def nag xel a koy àggale. Mhm. Euh, ngeen nekk ci juge bu ama am am solo. am na ko dugg sànq ku ma dégg muy wax ne. ci wax ci affaire sëriñ mais nag daa daa juum bu mu waxeetee noonu. sëriñ lu mu mënul amul. sëriñ lu mënul amul. waaw gis nga sunu borom subhaanahu wa taala. dafa mën a seetaan. waaye du seetaan kat. boobu nag baat boobu dégg nañ ko mbir ku mën a seetaan waaye du seetaan kat. di ngay gis ku yor kurusam di dem ci jàkk ja di ñëw. gis ku toog ci pénc dam yee. saa bu ko bëggee duma duma ko. loolu am na. kon moom moomu lay tontu moom mi wax loolu te nekk ci Europe. Mhm. na def très attention ci wax jooju. Ah. bu mu basé ci loolu. Mhm. Mhm. Euh, yaakaar naa ne àdduna àdduna. suñu xoolee. lu ci ëpp. waaw innocent yi bu ñu dee àtte. maanaam ñi nga xam ne maanaam xamuñu dëgg-dëgg baatin. bu dee àtte ci bàttale dañuy juum. Mhm. est-ce que innocent day day day day yenn saa yi mhm. dana wax lu mu xamul. Mhm. ok maanaam koo xam ne xamut mbirum baatin dara. mais mais mais mais Malick seen gars yi yéen ñenn ci seen gars yi lan moo tax suñu ñëwee ci yéen di leen di leen sant liggéey bu bon. Mhm. maanaam ke diw mi place bi mu nekk la mu laa soxla liggéeyal ma ko mu dof wala ñu dàq ko wala mu mu sàcc xaalis ba dàq ko am ci seen gars yi ñoo xam ne dañuy def liggéey bu mel noonu no yow noo ko gisee en tant que ku ku ku ku ci ne. Mamadou Ndoye xam nga. allo. allo waaw mane ne. waaw. xam nga boo xoolee jamono. waaw. Euh, euh, sëriñ daf koy nax. li mhm. gis koo xamante dinañ ñëw toog yow jooy nga yërëm ko. Mhm. loo xamante ni wóor na la loolu dëgg. Mhm. parce que. loolu day am. di gis koo xamante ne bii dina ñëw toog ci yow jooy ko wala comme tey nga am xarit boo xamante ni da lay wóor na sa xarit la. su ñëwee kalaamel la koo xamante ni bii wóor na la man lam lay kalaame jàpp na dëgg la. man nga ko def. te te fekk ne moom dafa dafa jublu woon ci kooku am jafe-jafe rek. loolu dina am. ñu bàyyi xel yooyu xam nga nit nit rek la mën a doon. mënoo am xarit ñëpp xam na sa xarit lañ mu am problème nga di ko si daal. loo ne du ma ko def sa waaye la ko def loowul. waaw kay. Mhm. moo tax moo tax dafay am loo xamante ni du neexal leeral. Mm-hmm. parce que accident day am li ñuy wax accident de travail day am. Mm-hmm. nit ki yenn saa yi mu duggal loxoom boo xamante ni bu paree dina rëccu lim lu ko doon def. Mm-hmm. loolu day am. axankay axankay waaye nag du ñëpp nag it ñooy def lu bon. am ñoo xam ne dañ leen def loolu bon ñu ñu ñu ñu ñu xool ko gis ne kat lii kat du ëllëg ay kàcc la ñu bàyyi ko. Mhm. waaw kañ bàyyi. waaw changé liggéey bu bon lan la Moussa sant déggal la ci ay million ba pare nga bañ. <laughs> waaw man de man de bi ma demaguloon Màkka. ah. bi ma demaguloon Màkka bi ma demewut bi nga xamante ni. dewuma Màkka waaw. booba demagoo aji. waaw jaar naa ci yoo xamante bi ñaan naa yàlla dutuma ci jaarate. ndeysaan ndeysaan. Mm-hmm. xam nga nit du wax lu nekku dëgg. Mm-hmm. dëgg la. bi ma demaguloon bërëb boobu. Mm-hmm. dëgg la. jaar naa ci bërëb yoo xamante bi ñaatuma yàlla jaarati ndax àdduna jaratuma ko. wallaay saan def nga loo xam ne daal ñaan yàlla dootoo ko defati. waaw. incha allah. waaw loolu def naa ko. yàlla yàlla nangu ko waay. xam naa loolu musoo ma ko wax de sa waay musoo ma ko wax de. loolu la ciy wax ah, yow yow yow xam nga lépp da ngaa mën a def dégg ci télé bi nag. da ngaa. dangaa mën a dof dof la xam nga ah, leen. doorkat doorkat bu a mag ngeen mu toogee na lu ma doon wax waaye ndoy baan bàyyee naa la kàddu gi. waaw waaw li ñu wax sant di ko gërëm bu baax. Mm-hmm, mm-hmm. laa la doon wax barki démb ni la. ñu baax a ngi ci dëkk bi. baax di liggéey normalement te duñ def lu bon duñ ko wax. bu baax bu baax duñ ko fekkee mm-hmm. mi ngi ñu ngi fi bu baax a baax a baax. Mm-hmm. bari bari fi bay bëgg a dee. macha allah te réew mi nag euh, ñi nga xam ne nag dañuy def lu baax. Mm-hmm. taxuñu ñoo wax ñi nga xam dañoo toog ci seenu néeg toog ci seenu mbokk di def yu bon. ñoom lijjantiwuñu ko dee lijjanti ko du dund lijjantiwu ko ak <laughs> lijjantiwuñu ko ak daante ñoom seen yoon nekku ci ñooñu teg ci boppam ña leen koy defloo ak ña koy def su réew mi tardé ñoom ñoo ko tardeel mhm. te loolu na la Afrique sax laa lay wax ni su tardé ñoom ñoo ko tardeel mais tubaab yooyu ngay wax benn femme woo na ma ni ma moom problème bi mu am fi mu nii ak actuellement ni Europe tubaab ba muy liggéeyoon doo la ko ko teg te dafa dem ba am ci ay preuve yu leer leer a leer parce tubaab bi la bokkal bu borom liggéeyukaay moom moo ëpp diplôme tubaab bi te ñoo ñoo bokk fu ñu jàngeetu mais moo ëpp mu nekk seefam liggéey mais problème bi mooy tubaab bi dafa ñëw lëkkaloog benn marocain ànd ak moom def ko li mu koy def ba film mi nii ñu ngi ci ay jafe-jafe yu tiimaan loxo africain mais loxo loxo africain nekk ci biir bi tamit am nañ seen i façon mm. ni ñu amee suñu ay baaraak ñoom sa ay ñoom sëñ Malick ñoom it la ñu amee seen i genre seen i ci sama gis-gis Serigne Bara tubaab bi comme ni nga ko waxee ñoom dañ ciy xam dara ndax macha allah sëriñ fu mu toll da nga gis ku nekk fële ci Autriche yónnee ne mais tubaab bi. Mhm. si sama xel bu gàtt ay problème mu amour lay am. nit ki na ma na ma jox bopp naka lay amee xaalis. c'est différent ah, naka la sama kii di ma bëggee. sama affaire bi doxee ni doon woy j'irai chercher ne ah, ah. xaw ma lan. wala kenn trahir ko muy venger waaw exact tu mhm. vois. loo xam ne da ngay ne sax légitime na boo bu fekkee gaawuloo delloo sa bopp. ci sunu borom. Mhm. Euh, man mi ba simila. Alaaji Baar man li ma bëggoon a laajte mooy euh, sacrifice gi xew léegi ci réew mi. Mhm. joxe sa cër ngir am alal. Mhm. joxe sa soxna ngir am alal. joxe sa taaw ngir am alal gi. yéen ndax jotagum ngeen ci loolu wala fu ngeen ci toll. waaw damay wax ci Alaaji Malick mii génn. waaw ni ko jaadu yàlla baaxal jaadu la bi may xamante ak moom. boobu jàppoon naa ne sax takk naa kaala gi ci ndigg li waaye bi ma baan xamalee ak moom émission la ma baan invité invité ko. ñu waxtaan ba pare mu ne baan kii kan la présenté ma ko. Uh-huh. ndeysaan ñàkk ki mu présenté ma ko mu invité ma këram ma dem. waaw ñu waxtaan ci lu bari. Uh-huh. jour boobu laa tekkiwaat kaala gi ci ndigg gi takkaat takkaat ko ci euh, takkaat ko ci takk tekki kaala gi ci baat bi takkaat ko ci ndigg li. da woyof rek. wax dëgg yàlla li ma wax nii dama koy dëggal. man mii di wax ak yow li mu jaar noonu jaar naa ci. waaye lu bari mook baat mii ñoo ko dindi ci man man nit bu masaan ñëw ci man wax ma soxla ginaar rek laa koy laaj yow mii toog soo ko indee bu ma ko reyee rek ñetti fan ma ne la demal toog te loolu ñi ma xam xam ma Burkina xam nañ bu baax li may wax parce que man xam-xamu zulmaan yu laa gën a maîtriser ka sax. nuuraan loolu daaw ko dégg ci Kouthia ndax. <laughs> waaw ma tooñ Kouthia. daan na ko def de moom nee na. waaw ah. ñetti fan rek laay laay def li may def ne la demal. waaye nag yenn saay yi naan ab sëriñ day am gétt. Mm-hmm. gétt mooy dangay am mag mu ne sa ginnaaw. di la digal ngay def. wallaay di tere ngay bàyyi loolu moo jubbanti mais. Mm-hmm. lépp loxoy kii la. Mm-hmm. parce que nit boo ñëwee ci benn domaine maîtriser woo ko bi ma ñëwee li ma njëkk wax mooy bu ma la gis ci rajo. bu ma la gis ci télé. bu ma la gis ci internet bi. Mhm. li may wax dama koy wax moom mu toog bëggul sax ma koy wax. seede laa ci ndax premier jour bi ngeen di jox jokkoo maa ngi toog. mi ngoog ne ma bu ma la gis ci tele bu ma la gis ci rajo bu ma la gis ci internet bi ma ne ko li tax mu ne ma ay kàcckat rek a fa nekk. Mhm. te boo teeyee tegu ci nga war a tegu xam-xam waxaaliwu ko ndax mi ngi ci yow. Mhm, mais boo teeyee tegu ci yoon wi nga nar te war a tegu dara jomb la te pourtant boobu lu ma neex ci àdduna dama ko doon def. yenn saa yi day jékki-jékki gaare otom sama bunt kër yéeg ci kaw na ma bu ñu fontoo bàyyi léeg léeg léeg lii diw nee na dafay ñëw kay liggéeyal defal ko lii mu gaaw loolu te loolu waxoon naa la nga bàyyi ko ma bàyyi ca laa dem ba bàyyi zulmaani di liggéey noraan xanaa nekk nekk sëriñ dafay def mm. macha allah boo nekkee ndaw doon sëriñ ngay dem sagesse gën laa dugg ah. yiw gën laa dugg euh, lu bare dugg la daal parce que loolu yéen may won ni li xale du mag li mag du xale loolu nga ma nekk di jàngal soo boo nekk rek euh, soo nekkee am xam xadar gi booy dem mag day deñ da gën di nekk mag di gën di fit wi gën a wàcc salaamaaleykum madame Diouf nee na ñu jël téléphone euh, Baara ñu ngi dikk ci yow léegi allo macha allah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ah nuyu naa leen kontaan naa trop tey mun na. ah gis leen nii. mais yow sa mbette kii bi la jël de ñun suñu bos autoroute à péage. <laughs> ah. ñun suñu mbette ci yow autoroute bi la jël. eh yow moom it danga maa neex. mais man fii laa la def. non maa la gën a lool jërë ngeen jëf waaye. <laughs> merci thank you so much. ndeysaan da ngeen di enjoy trop trop trop. da ngaa rek. Mhm. Eva Eva kontaan nañ trop. naam naam bisimilah doy baan nag moom kontaan nañ trop. pour pour li boo liggéey moom mu ngi liggéey lu baax di dimbale askan wi. Mhm. dëgg la. jërë ngeen jëf waay. merci beaucoup seen seen li ngeen ko laaj sànq. waaw ndax ñu nekk Europe ndax ñoom xam ne ndax tubaab bi xam nañ ah, yëfi marabu. waaw waaw waaw. Ah, tubaab ku nekk daal ak li siiw comme niñ ko waxee ne sénégalais ak ak gambien bi xëy na foofu yiñ faa gis mooy yi yàq moo ëpp daal. Mhm. mais tubaab bi ëpp doole yi moo def muy defar boppam la. Mhm. waaw kañ bàyyi. ñoom am nañ ah. yu bëri loo xam ne ñoom ñoom it suñ boo leen ko wanee ñu dugg ci. Mhm. bëgganteeg am xaalis nit daal mooy nit daal nit moo moo moo gris rek. nit ah, moo bugg a moom mu gën a mu gën a fés mu gën a baax la. loolu daal nit nit mooy nit rek. dëgg la. amut Chinese la amut Mexicain la. parce que euh, fii euh, boo ñëwee fi tudda Florida Miami. Mm-hmm. ah foofu Haïtien yi ñoo fa ëppa te ñoom mm-hmm. dañoo defar ah, lu tudda ay voodoo dool. Mm-hmm. te loolu tubaab bi dañ koo jëfandikoo dañ koo tey buñ buñ bësee fii sa fii métti buñ bësee fii nga ba doo mën a toog ci feesu liggéey bi ñoom it am nañ ko mais ëpp doole bi ñëpp ñoom luñ ko defee ñoom it mu duñ def yu bon daal ñoom yu gën a bari ñoo def mooy ñoom ñoom ñu successful daal ñu avancé ñoom la ñuy bëgg ku fa nekk di la bu dee ne comme si liggéey njaay ngeen nekk ñoom ñu ëppale la njaay lañ bëgg dëgg la bu dee ni ñoom daal lu leen di dimbal mais duñ def loo xam ne dafaa rey keneen ñoom ñeme ñu façon yooyu dëgg la ëppa doole ci def yëpp leen di dimbale lu leen di yóbbu kanam waaw waaw macha allah moo tax gis nga sëriñ Baara maa ngi wax sànq ne na lu bu di gën a dem yàlla gën ko dolli sagesse mhm. macha allah moo tax euh, lépp base la nag li ñuy waxtaanee nii yëpp suñu ko jëlee dañ koy tënk dugal ko ci biir yar ak teggin ak doylu doomu aadama soo amee yar nga am teggin nga ràññee nga doylu macha allah dafa am yoo xam ne danga koy jombale sa bopp mm-hmm. nday gisu la bàyyi gisu la ka ngay digaaleel gisu la waaye lépp a ngi ci biir comportement mm-hmm. dafa am sax gis nga ci biir kër pour te dire nit ñi danoo yemul bërëb boo dem pour liggéey ba ngay njëkk wax salaamaaleykum ak kanam gu ne na nga koy gisee. kanam bu nekk ak na mu lay dalalee kanam bu nekk ak na mu lay xoolee ak ku ca ne kàddu gu muy génnee noonu ngay xamee ne bu ñu dee fukk wuute nañ. Mhm. yal na yàlla baaxal ñi nga xam ne danoo xaw a dem neneen. macha allah mais wax. Mhm. Euh, yi ngay wax noonu na ci baara ñëw. parce que bisimilah baara sa jabar wala sa doom pour am xaalis. ah oui question mami bi aussi. door door balu teg si bi ak ginaar gi ñuy dàq mu dugg ci sébb bi. waaw dafa am benn sirru bi ñuy wax basi. ak jalanke mhm. mu doon siru yi nga xam ne moom moo gën a dangereux mhm. ci li sëriñ si di suñu liggéey zulmaan yi di liggéey mhm. basi nag boo demee ko tey Burkina wala nga dem Niger wala nga dem euh, Bénin ñooñu ñoom ñoo ci gën a foor nga xam ne ñoom ki koy liggéey dëgg-dëgg du am alal ki nga xam ne daf koy liggéey dëgg te respecté jinne bi di def sarax yi normal ku pauvre lay doon ku sonn lay doon yére yu baax sax du ko sol mais lu mu lay defal ñetti fan la koy def basi boobu nag dañ ciy liggéey ngir am alal dañ ciy liggéey ngir yàq nit mhm. dañ ciy liggéey ngir fal nit dañ ciy liggéey ngir fal nit président africain yu baree baree bari seen sëriñ yi ñuy dem di def sacrifice basi lañuy ñuy liggéey mhm. Mhm. basi boobu nag boo koy liggéeyee bu fekkee nit ki dafa lay laaj pour am alal dina la laaj say wee dana laaj ngóora dana laaj sa doom dina la laaj sa soxna sañ sa aawa lu ëpp aawa lay laaj. aawa ndox ba ndox ba ba fi aawa amul. dina la laaj sax ak taaw laa ne waaye aawa wóorul. dina la laaj aawoo nga gis que ni. bu boo demee ba def sacrifice bi rek. bu alal di commencé ñëw rek. dangay gis sa aaw day feebar feebar bu gaaw. bu tëddee ñetti fan da koy bu dee sa doom. ci ñaar la koy laajee day laaj sa doom ji juddu ba pare. Mhm. bu fekkee am nga taaw. Mhm. day laaj taaw boobu mu jékki-jékki rek def ko noo xam ne nit ñi sax dañuy yéemu kii lu ko dal. Mhm. mën na bañ a faatu nga xam ne waaye dañ la koy berloo ci biir kër gi. am na fi. Euh, walla mu laaj la sa karawu ñetti karaw yi nga am ak say weeg. wala mu laaj la ginaar wala bëy waaye boo gisee ñu bari di wax naan ginaar wala bay wala sa karaw. dañoo xamul après nu ginaar gi def. ginaar gi dafa am saafara buñ koy sangee seen affaire bi ñu koy sangee. buñ ko sangee jox la na la sangul. ñu téye ginaar gi mu tiim la ñu la koy sangee buñ ko sangee ba pare. dañuy jël essence sotti ko ginaar gi. sol ko taal ko séddu waaw taal benn séddu. dàq ginaar gi mu dugg ci. buñ ko dàq dañuy teg fee ginaar gi. ne la waxal li nga bëgg yow yaay wax li ngay bëgg li nga bëgg di ginaar gi di dox di ñëw. yàlla bu ma juum. di lim ginaar gi di dox di ñëw ba dugg ci biir. ba géej dugg ci biir dugg ci biir taal bi tàkk ñu ne la demal ñetti fan lan lay may ah. li nga wax ñetti fan yi lay commencé alal dina jógee ci côté bu ne ñëw ci yow uh-huh. beneen bi si topp bu nay laaj sa ngóora bari na boroomi alal yu bari yoo xam ne seen ngóora la ñu joxe mënuñu am doom uh-huh. dégguma de ak fee bari li tax ñu naan góor lañ joxe nañ ko hmm, yàgg na maanaam du duñ mën a sëy wala duñ mën a am doom ñaar dafa am dafa am duñ mën a sëy wala duñu mën a am doom mhm. bu ko defee nag da ngay da ngay gis que ne njaboot daf koy jafe mhm. waaye nag am na lu nduru nduru loola te du loola am na nit ñu yiw tegu ci yoon wu jub ba pare yàlla nattoo leen lii ndax yàlla lu mu def dëgg rek day def dara mu nduru nduru mhm. loola kon nag nañ ci moytu di ci bàkkaar ndax am na ñoo xam ne dañoo ñàq liggéey ba am seen alal feebar dab leen waaye du ay sacrifice lañ ko amee. ay dëgg la waaye nag am na ñoo xam ne dañoo def ay sacrifice ngir mën a am lool. am na ceeb ñu ciy am góomu robaale ba koy nëbb. effectivement. luy góomu robaale. maanaam góom bu day dem day jëloog maanaam am foo xam ne dañ koy dagg ci sa cër. Mhm. mais loolu du wér. lu lay doon da faj à vie. koy faj à vie du wér. Mhm. parce que foofu la jinne ji jaar ngir mën di dundee deret am na ñoo xam ne seen doom dañuy nëbb nañ seen benn doom boo xam ne. ci seen biir kër boo xam ne saay bu at mi jotee bu ñuy benn benn dama ci télé la ñu nekk lu bari luñ ko mën a defaral. Mm-hmm. thème de la semaine mooy gën mooy gën a mooy gën a yomb. da dem ca rajo ba waaw parce que thème la semaine ci doom ji day ndellu. waaw man mi waaw boobu doom xanaa kenn du ko ray kenn du ko fóon. man mii di wax ak yow. tontu leen jamono ji ñu nekkee Burkina. ci loxo ci loxo boobu ma doon wax. waaw loxo boobu ma doon wax. pourtant man nii man bu ma seetu sama diggante ak sama borom mën naa ko mën naa ko liggéey. Mhm. ndax ka ko doon def moo ma ko jàngal ba man ma man ko faatu na. Mhm. waaye da ngay gis que ne moom bu lay laaj benn loxo la lay laaj mais loxo bi mu lay laaj xeeti nit la ci biir nit ñi. Mhm. allo ñu tooñ. waa léegi Baara léegi jëlal leen ma ki ci ligne bi salaamaaleykum. allo waa léegi thème de la semaine mi ngi leen di xaar salaamaaleykum. waaleykum salaam. mbokk bi bisimilah. bienvenue waxtu ba nga duggee baax na. maa ngi ci ñu ngi lay delloo ziar waaw di ziar ñu plateau bi ñëpp. jërëjëf waaye. maa ngi wootee Mali. Mali. waaw. ah leen ci lu nu bokk wax dëgg yàlla. wallaay ndeysaan. massa leen bu baax a baax a baax. yàlla na ci yàlla gis ndox mu sedd. amiin waay ndeysaan. ah sinon yàgg naa ci ligne bi maa ngi ci ligne. baal ñu ngi lay déglu. waaw xam na jaajëf. waaw comme wax ji li mu ci affaire sëriñ moom gëmul yooyu affaire yooyu man ci loolu laa bëgg a wax quoi. waaw parce que man depuis 99 maa ngi fii Mali. Mhm. waaw mais nekkewuma fi sama taw sago ko. Mhm. maanaam li tax ma ñëw fi sama benn bàjjan moom ma ko defoon boo xam ne. Mhm. gis na ni man xale laa am naa wërsëg peut-être wërsëg bi ma yàlla def defalu ko ay doomam. waaw mu daal di may génn dëkk bi quoi parce que man fu ma dem dañ naa ma yow dañ laa naawal. Mm-hmm. dañ laa naawtal. 99 ba léegi benn yoon laa ñëw Sénégal sax bi may ñëw Sénégal def naa sacrifice yoo xam ne 3 mois damay sangu. Mm-hmm. di rey ginaar ak toju neen pour ñëw Sénégal. Mm-hmm. bi ma ñëwee bi ma gisee dañuy sëriñ see mën a tan li ñu ko waxoon amut man moom waruma woon a waat balaa may ñibbisi aussi laaj na ma kañ ngay dem ma ne ko man moom ñibbisi naa damaa waroon samay bagage yëpp ñibbisi pour nëbbatu ko mhm. bi ma ñëwee ba séjour bi jeex ma dellu si waat mais bi ma ñëwee ba léegi nii mënu maa dellu te ñàkkuma dara pour ñëw fu ma dem rek dañ naa ma yow boo dañoo jël ci yow yow moom doo kuy dellu mhm. waaw sëriñ bu ma dem day def ba sonn ma jàll fa neen fu ma dem day def ba sonn ma jàll fa neen mhm. maa ngi nii manqué wu ma dara bëgg naa ñëw mais lu ma jafe la cinq millions bu ma ko yoroon wàññi Sénégal laa bëgg a ñëw une semaine bi léppay tax yaa ngi dégg xam nga nit mënul dem ci dëkk ak loxo koy neen mhm. su ma deful sama xel Sénégal soxlawu ma ko lu ma soxla dama koy am ci bépp boor nag mhm. mais daal xel mi daal heure bu la tourné Sénégal rek non non lépp ay yàqu lépp mhm. lépp ay yàqu te moom ci boppam bi ma ñëwee fii wax na ma moom la te xamit li tax ma xam ni moom la waxoon na ma ko Sénégal waxoon na ma ko Sénégal ne ma yow dinaa jóg ci yow Mhm. li na ci yow newut ci xale yi waaye bu soobee yàlla naa jóg ci yow waaye booba xale laa boo xaw ma woon affaire yi nu muy demee. te sa bàjjen la ñëw bi may ñëw fii nii. soluma sol maanaam yoruma saak yoruma dara damaa xëy rek sama xel mi ne ci génn ma génn fu ma dem baax na ba ak si Mali. Mhm. ba ma jóg Mali taxu ma woon a jóg man damaa génn dem rek di wër ba ak si fii. Mhm. yaa ngi koy wax. mais man bi ma ñëwee fii wax nañ ne ma carrément moom la wan ma wan ma ñett ñi la gën a bañ lan ma wax dinañ la ko wan ci ndox. ci lege bu bees sàq lañ def ndox def ci liñ ci def bi ma xoolee moom laa njëkk a gis. Mm-hmm. bàjjen de bu demee bay naawtal doomam. Mm-hmm. gis nga naawtal boobu. Mm-hmm. ci lañ ko naawtalee Mali la teere moo tax dëkk boobu du fik loolu ma nga fa du fa jógee. te bu fa deeyee nag moom lay gën a metti ah. moo tax bu naawtal buñ la ko defee. waaw lañ la naawtalee fañ ko sànni. dañ koy def ci dàllu càmmuñ dañ koy def ci naam ci ci ci ci mala mais buñ ko defee fa mu dali fa mu dem dëkk ji fa yow foofu nga jëm bu dem àll ca àll booba ngay dem toogi doo xam loolu fa toogal buñ juumee nag ba téere bi wadd nag ba xam ne téere bi wadd na boobaa nag dangay ngay commencé ginneeku mais da ngay réer xamatoo doo xamante foo jë foo dëkk mhm. waaw mais bu fi téere bi mu ngi tikkee muy pët pëti ci laafam rek yow fu mu jëm rek da gis nga ne da ngay déplacé mhm. moo tax ngay gis yenn saa yi nit koo xam ne dañ ko naawtal nga dégg ko mi ngi ndar mu ngi mhm. Louga mhm. mi ngi Touba. ñu koy wër fekk naawtal moom mooy def noonu wala mu nekkoon bitim réew ñibbisi te dootul mën a te dootul mën a dellu waaw yii lii may wax nii lu am la di tax commentaire ma ci ki génn noonu di wax ci affaire gëmuma sëriñ gis nga euh, bisa ngi ci bisi nit ku ne la gëmuma nekk bul gëm dara. da koy seetaan ndeysaan ndeysaan parce que gis naa ay kilifa yoo xam ne. li leen yàlla dénkoon ci alal. fi mu ne nii may wax yow am na koo xam ne mi ngi fii sali du ma tudd turam. Mm-hmm. li ko yàlla dénkoon ci alal kër gi mu fa tabax mu ëpp fii kenn mësul gis kër gu mel noonu. Mm-hmm. entrepreneur bu mag la woon mais tabax na ko ba mu yegg ba nga xam ne dara desul lu dul finition peinture rek yooyu karol def na lépp pour mu war a sanc mën a fa kuppet alalam di yàqu nit ñi di ko daw ba fi mu nii mënta sax yéegale kër ga fi ci jaay ko nekk. Mm-hmm. te nee na musul gëm sëriñ. daa mm, réer. waaye fi mu nii. Mm. moo dàq sangu gi. <laughs> lab sam lab bi may wax. nga xam ni waaw ndeysaan. olof dafay wax ne fagaru balaa ngay. <laughs> faggu waaw faggu balaa ngay yàqule. <laughs> waxuñu gëm sëriñ du caagi nekk ne da ngay toog fi nga toog na gëmuma ko. Mm-hmm. mais del moytu. ndeysaan sëñ Malick wax na lu am solo. del moytu moytu lu baax la ci nit. dëgg la moytu du ak ragal. Mm. dama mës a dugg géeja dama mës a dugg euh, kalandoo wàcc mhm. kaas ba di dem géeja waay di fay deux cent cinquante di dem marché joli mhm. dugg ci biir oto bi benn pël ñëw dugg toog sama wet sama mbokki pël yi maa leen ko sañ a wax ndax man séeréer laa <laughs> bi mu ñëwee toog sama wet eh. daa di ñëw ba ñu tourné ci hôpital bi booy tourné noonu ci hôpital bi rek xam nga mhm. arrêt bi dafa xaw a sori bi muy tourné juste rek na chauffeur bi may ma fii fi mu ko bëggoon mu may ko du arrêt bi chauffeur chauffeur bi yeex taxaw muy wax di di ko saaga way nga taxaw chauffeur bi na la tontu fekk man maa ngi toog ci kanam ma teg sama loxo chauffeur bi ne ko noppee. Uh-huh. bi mu wàccee ko continuer di tëkku chauffeur bi di ko di maanaam di ko yuuxu daal bëggul woon lu dul chauffeur bi tont ko. ba mu yàq ba mu def li mu bëgg a def. Uh-huh. fekk maa ngi gis loxo bi mu ko dóor dugal ci bi seen ji gafaka yooyu. ñu seen sunguf yooyu. man xam naa. Uh-huh. ma ne ko noppee. bi mu bi ñu noppee bi mu noppee ba waaj ba pël bi dugg ci biir koñ bi. waaw bi dugg ci biir koñ bi teg tànkam bind ci suuf tibb ci sunguf si def ko wis ko ci oto bi dama ne chauffeur bi wàccal. Uh-huh. waaw mu wàcc. ma ne ko ubbil capot bi mu ubbi ma bind ci capot bi li may bind ne ko taal oto bi mu taal oto bi daw tuuti fay. Uh-huh. ma ne ko ma ne ko bàyyi mu bàyyi mu taal ak bi dem. ma a ko gis nga lii kii lii mu def. bu la jàppoon bis bu bis bu la jàppoon. oto bi day këpp. Uh-huh. da yéen ñi nekk ci oto bi yëpp da ngeen di dee. boo gisee ma ne la bul ko tontu. bu ko tontu woon yàqu. bu ko tontu woon yàqu. santal yàlla nag bi ma nekkee ci oto bi. ndax aaruma sama bopp laa aar. ndax xam naa li mu def. Mhm. kon nga xam ni moom moom dama koy moytuloo. moytu du ak ragal foofu la wala fay waxee lu loxo def loxo mën na ko dindi dafa am loo xam ne da nga koy moytu. Mhm. dëgg la waaye doo toog na gëmuma ko. daw ba raw ci ngóor la boo xam nga tey bu mat sa amee nga ne man gëmuma ne Sénégal Gambie mën na koo dóor. waaw mais defal ci sa xel ne yàlla mooy def lu ko soxla. jërëjëf jërëjëf pourtant firaw naa. gëmul woon yàlla. pour ah. pourtant ci ñi ñi yàlla defoon ñi yilif àdduna. est que moom da cee bokk. pourtant ku gëme di woon yàlla la. kon ngeen xam ne kon lu caagi ne ko nit du nàkk day necc lu neexut yàlla rek yàlla tamit da du ko faral déet naka yàlla yenn saa yi day seetaan maanaam ci gàttal yàlla sàkk na lu ne waaw day seetaan bu kenn ne jamais bu kenn waaw li nga wax noonu ci affaire sacrifice yi waaw ñu tëjee ko euh, dama la ciy wax rek nii la euh, lu ne am na gis nga loolu ma lay wax ne ci fi loxo boobu bu buñ ko liggéeyee bu ko liggéeyee ni nga koy liggéeyee dalay wax ne bërëb bi nga koy def kenn du fa dugg ku dul yow. Mm-hmm. waaye boo demee danga koy samp. boo xëyee suba benn billet bi gën a mag ci dëkk bi nga nekk. Mm-hmm. buñ koy wax dañ naan dix mille francs CFA. saay boo xëyee suba. Mm-hmm. loxo bi nii rek da koy dañ am nañ koy sampee nii lay def. saay boo roccee beneen day ñëwaat. nga rocce bari nga soxla nga dem. mais jour bi nga xam ne moom la yàlla di ko weer mbindaanam. moom moo dafa dugg ci biir euh, bureau boobu def la muy def ba pare fàtte koo tëj mbindaan bi di defar di defar di defar di ba dugg ci biir daal di rocci gis loxo ba ak ni ñu ko defaree mu daal di rocci xaalis ba ñëw mu rocc xaalis ba ñëw mu dem wuti nag lu mu def rocc caa roccee rocc ba ëmb ko bi mu wàccee di gii gi tali bi oto ba fil ko ah. mu dee ci bi nu woowee waa ji wax ko ko xamul dafa jaaxle ba xamul lu muy def bi mu ñëwee ci lay door rendre compte kan yi tëjul woon buntu bi oh, waaw waaw kon yii dama leen ciy wax rek ne leen lu am la ndeysaan kon ñun nañu booloo ñu moytu macha allah am na ko musa woon doy baan di ko wax ne sama jëkkër li ma jaaxal mooy ci biir kër gi mhm. dafa fi am néeg boo xamante ne mooy tëj mooy tijji ah à part moom benn waay bu nekk ci biir kër gi mooy tëj dem bale mooy tijji dem bale mooy tëjaat rocciwaat caabi ji kenn du dugg gis nga loolu am nañ koo ci xam ne doomam la jëloon ci mhm. moom la dugaloon ci biir néeg ba mhm. di ko fa indi lekk di ko indi lépp mhm. mais gis nga bu bu bu bu bu ñëwee day jël doom ji rek jël ko ni tànk yi féete kaw mu téye ko nii juutal ko dangay gis benn jaan bu mag mooy ŋaa deret ji di génnee ci doom ji jaan ji di naan bu naanee ba doyal waa ji teg day toog tuuti nga gis xaalis bi jóge ci kaw commencé di wàcc. aywa macha allah te loolu ama am la ñu tëjee ko ñu tëjee ko émission bi ne programme yee ngi xaar tabaarakallahu xam-xam bi yal na ko yàlla gën a yokk. yàlla yàggal sa taxawaay yàggal sa taxawaayu ay ñooñ. defkatu yu baax yi ci dëkk bi. macha allah yàlla yàlla sàmmal nu leen. ñi mel ne Eva sax te xaw a jóge ci yoon tuuti yàlla yàlla delloosi leen. teg leen ci ci ci yoonu dëgg. macha allah ndax dëgg. mooy dëgg dëgg moo njëkk mooy mujj yal na yàlla sàmmal nu boppam ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw di ziyaara waa daara ji ñu bokk waa Fathul Xadim ndeysaan nga xam ne moo ko sos di sëriñ Maam Cerno Jaxate mhm. ñu nekkandoo woon daarul muxti kër mhm. eh, ki ko jiite nag di kilifa gi di sëriñ Xabbaan Kebe dëgg la toftal ci alxaaji Malick Guèye ak ñeneen ñi fa nekk mhm. ñëpp bokk ci biir daara ji ko demee ne sëñ Fallou Jaxate nit ñu baax di wax ne daara ji nag dañ ko sos ngir ngone yi nga xam ne dañoo dugg ci lasaraan ndax xam-xam moom mënoo kenn doo ci dugg mhm. waaye ñi nga xam ne dañ ciy dugg ngir bëgg a xam yoon wi ñuy tegu mhm. ñun ñun am saasu ñun ñu teg ñu ci yoon woowu ñu sos daara ji ngir képp ku bëgg a ñëw ñu dugal la ca teg la ci yoon da ngay mhm. bàyyi lii def lii bàyyi lii def lii xam nga woote boobu ku namul lu baax doo ca def zulmaan yu sax boo ko fa dugalee <laughs> maanaam sirru boo xam ne parce que xale yi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu pour mu mais dañ koy def talsam boo xam ne. Mhm. yaa iblis na la day joxe xaalis. wala yaa shayatin hmm. ngay wird ngay tur wi mais dañ koy talsamee noo xam ne yow booy wax sa làmmiñ da ngay jàpp ne waxoo yaa iblis mhm. mais ci biir talsam bi yaa iblis lay jàpp ngay wird xaalis bi di ñëw mais daf lay xettal ci lu bon pour ngay amee foofu xaalis mhm. te loolu lu mel noonu ak yeneen ñu mel moo tax ñu organiser lu mel nii di ci di ci di ci di ci dimbale gone yi nga xam ne ñoo ci nekk ay kilifa yu mag nekk ci nga xam ne ku ci nekk dan naan kii moom moo ne moomee doom ku bëgg a jëm ci yàlla mm-hmm. bëgg a xam yoon wi ngay demee ci yàlla mm. bàyyi xabbaan moom moo géré lii ko képp koo xam ne da bëgg xam ci lu jëm ci wàllu njanaaw ak juróom yu mel noonu mm-hmm. alxaaji Malick Gueye moo géré lii mm-hmm. képp ku jëm ci wàllu faj noonu lañu ko defee kon daal nga xam ne ah, ñoom jubluwuñ ci lu dul rek rafetal ak sàmm mm-hmm. ndondol mag ñi nga xam ne moo fi nekkoon parce que kon ndondol mag ñi dañ ko war a sàmm ah, kon di ziyaara sama wasila sëriñ mm-hmm. na yàlla bàyyi fi sama ñaari waajur sama ñaari soxna yi itam sama ñaari goro yi xam nga baat moom xam nga tàppe di benn lañ yor waaw ziyaar ñu bàyyi la nga tàggatoo yow itam balaa ma delluwaat di tàggatoo waa Sénégal gépp di wax alaaji Baara ne ko waxtaan wi am na solo lool ak alaaji Malick Guèye ak mboolem ñi nekk ci seen kuréel googu yëpp ñi liggéey ci lii ñuy waxtaanee te di ko sellal te jàppale doomu aadama yi rek tax leen a jóg kenn ku ci nekk ci ñoom fekk nañ la fa nga nekk jox la sa wàccuwaay bi gën a sell bi nga gën a yeyoo di ziyaar nag sama baay sama xarit alaaji Macky Ibrahima Niass maa ngi koy jox wàccuwaayam bu gën a wër ak MC Niass itam maa ngi koy ziyaar sama mbokk moom ma bokkal Lat waaye di wax ne bu ngeen bëggee ci robe bi mën ngeen a seeti Abim Ndiaye mi ngi ci 77 151 56 77 151 56 27 woo leen ko mu ñawal leen ci am na ci couleur yëpp ñii la génnee te yu neex a féex loola wax dëgg yàlla di wax ne waa Sénégal kenn gënu leen ba suba ak jàmm ak salaam. C'est le moment de donner les bonnes adresses je m'en vais le faire maa ngi remercier bu baax a baax ki nga xam ne mooy waa salon Béatrice ñu nga nekk ci 33 842 50 20 33 842 50 20 fële ca marché Fass euh, ñoom Tina maa ngi leen di remercier ñoom Anne-Marie Toulaye madame Ndour et toute l'équipe macha allah remercier naa leen bu baax. kon bokk Eva itam li mu sol mën ngeen a jàpp ne Bamana style moo ko ko solal nee naa seen style dafa intemporel moo tax man mënuma ko bàyyi donte nag euh, fondatrice baa ngi nii jàkkaarloo ak yéen euh, mën ngeen a woote ci 33 821 64 72 33. 821 64 72 robb ci kaw robb laa sol kooku nag ça veut toujours tout la ca rafet yëpp ca gannaaw lañ ko def mëno mooy jukk wane ka bu ko defee nag itam ñu ngi remercier sunu nijaay ami du Camara ma nga nekk ca Wakam macha allah kooku nijaayu Eva Tra la ñu ngi ñaan yàlla yàlla defal ko jàmm ndax li ñuy waxtaanee wax dëgg yàlla moom xam na ci lu bare bare bare Papa Abdou Traoré itam jërëjëf Papa Cheikhna Traoré jërë ngeen jëf Eva dafay ndongalu lëj loo xam ne mënees koo dimbali waaye nuyu naa leen sant leen samay waa kër yaay leen bisimilah baan tàggoo nga de. Ah, aywa ñëpp suba ak Baara di nuyu ñëpp rek ñi da xam ne ñu doon seetaan yàlla jàmm yàlla may ñu dégg ak topp mi yanduur merci à toi merci à toute l'équipe au revoir ba suba incha allah ñu ànd euh, non tey sosé dana ñëw jeudi waaye ba suba bu soobee sunu borom Serigne Bara jërëjëfati jërëjëfati jërëjëfati